Djibril Nying laa membre de la société civile plus précisément euh, secrétaire exécutif ou plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections Nous avons un pacte muy kuréel boo xam ne dafa dajale euh, lu mat juróom-ñetti courel yo xamné dañuy yëngu ci mbiru société civile forum civil ci la bokk radi ci la bokk réseau sigil jigéen ci la bokk rado ci la bokk euh, ligue sénégalaise des droits de l'homme ci la bokk ak Indagraf. léegi ci tënk rek dañu a xam lan exactement lan mooy société civile ak lan mooy seen déggee euh, mi ngi juddu ci euh, réew yi nga xam ne. dañuy euh, doxal démocratie alors réew yooyu dafa am état bi ak cëram ak ay mission am ñi nga xam way politique yi la maanaam classe politique ñu leen wax classe politique ak seen ay mission am nag ci wetu loolu ci diggante bi li ñuy wax société civile maanaam ñi nga xam ne nekkuñu ci état bi nekkuñu qui way politique yi alors seen euh, cër nag mooy ñoom dañuy waxal askan wi di taxawal askan wi lépp dafa soxal askan wi euh, te itam bu bi dafa jeng ci ay mission euh, rôle na ci rôle ñu bu fekkee ne état bi dafa bu fekkee ne politique yi la également bokk na ci seen rôle ñu wax ak ñoom euh, bu fekkee ne état bi ak politique yi way politique yi dañu juuyoo am lante ci seen diggante di jàppante ñoom dinañ ci faral di def médiation maanaam dox ci ay tànku jàmm ba ñu déggoo ba réew mi mën a nekk ci dal bokk na ci aussi mbirum élection bu jotee ñu saytu élection yi ba nga xam ne élection yi dana jaar yoon te du am benn coow waa société civile euh, dafa ni mu amee ci biir politique yi waaye politique yi ay ay li euh, mu amee pluralisme noonu la amee pluralisme ci biir société civile alors euh, ci 2012 am na ci société civile bi du ñëpp ñoo xam ne dañoo demoon ba duggante ak way politique yi bokk xeex bu ñuy def xam naa moo tax ngay wax ne ci la ñu gënoon a fës waaye booba amoon na yeneen pàccu société civile yoo xam ne continuer di liggéey la ñuy liggéey ba tey jii ñu nekk aussi loolu moo nekk loolu moo am kon parti boobu ñu doon wax amoon na ci ci ñenn ci ñoom amoon na ñenn ci ñoom waaw dinañ leen faral di citer ñu mel ne euh, Penda Mbow ñu mel ne euh, Aline ak ñeneen euh, bëri sax noonu demoon nañu ba am pété ànd ak parti politique yi waaye boo koy seet société civile ëpp na loolu fuuf booba ci jamono yooyu ñeneen a nga fi woon euh, ñoo xam ne ñi ngi yoroon seen kuréel di ko doxal ñu mel ne rad yi demuñu woon foofu rado ci boppam bi Alioune bokkoon sax demuñu foofa ah euh, forum civil dugguñu ci woon mën na Amnesty International mën naa la citer organisation yu bëri yoo xam ne ñu nga continuer woon di dox seen rôlu société civile waaw processus électoral bi waxoon naa la ne euh, bokk na ci rôlu société civile Nous euh, koy saytu ba nga xam ne euh, élection yi dana doon élection yu mucc ayib ayib te am dal ak alors euh, mën naa la wax ne élection yii ñu jëm comme ni ngeen ko constater, comme ñi ko ñëpp constater, élection yu bëri tension la alors tension boobu nag tooguñu nii rek di ko xool ñun société civile euh, teel nañ ci jóg waaye bi ñu ci jógee li ñu njëkk a def mooy ñu jàngat ko càmbar ko seet lan moo ko waral laata ñuy def dara ñu seet kon li ñu njëkk a seet mooy dañu seet nan la tension boobu juddoo fu mu jóge ba fi mu agsi ñu gis ne tension boobu euh, day faral di am élection présidentielle chaque fois élection présidentielle bu amee ndax suñu réew yi président de la république dafa am pouvoir yu yoo nga xam ne daanaka dafa jéggi dayo jéggi dayo boo xam ne bi loolu moo waral xëy na parti politique yi euh, di ci muy am tension ci diggante parti politique yi chaque fois que bu euh, compétition électorale jotee ci élection présidentielle lolu tension yoyu Amone na boo gis 2012 amone 2007 amone 2003 buñu jëlé rek li gëna a ci histoire politique du Sénégal. est-ce que a ci tension yooyu yéen a une ciy xeex bu baax pour loolu mën a Sénégal. moom la moom moom laa lay wax nii balaa nga ciy xeex mbir balaa nga koy xeex da ngay xam nan la tëddee ak nu mu ak lu ko waral wolof njaay dafay wax ne li yëngu li yëngal li ko yëngal ko ëpp doole kon nag ñu gis ne tension bii ci élection yii présidentielle yii yu 24 février yi daanako boo koy seet mën nga tàmbalee ca euh, refontu fichier électoral bi 2016 booba dafa amoon euh, li ñuy tuddee commission technique de revue du code électoral parti yep nek fo majorité non aligné opposition ak OGI yi les organismes de gestion des élections ak société civile ci lañ doon waxtané affaire u euh, manam teugat fichier bi defaraat ko ndax dafa am lu bëri lu nekkoon ci fichier bi lo xamné waru ci nek déjà ci waxtaan woowa 12 points moo amone fukki pogne ak ñaar yi ñu war a waxtaane ba waxtaan wa jeexee ñaari weer après ci ñeenti poñ rek la am accord ferme maanaam déggoo bu amul benn werant waaye boo jëlee juróom benn poñ yi wuute ak ñàkk déggoo am na ci ñaar ya ca des euh, mën nañu wax ne euh, werante dal ay werante mo ci am lérul nekul lo xamné ne leer mën nañu wax né ne mënuñu wax né accord amna ci ci mënuñu wax né désaccord amna ci manam waxtaan wu yegul la déjà tension yi fofu la tambalé ñu teg ci législative yi bañu génné ci lool législative yi aussi gis ngeen na mu na mu na mu na mu amee euh, am na un million limbu bu toll ci 1 million ay électeurs yu jotul won sen carte électeur te amoon na beneen lu tolloog presque 1 million bo xam ne defaragul won sen carte donc mu mat ñaari million yo xam ñi ñii jotuñu seen carte ñi defaruñ jotuñu sen carte manam mu nek election yu yu doy waat donc yo xam tension ba tambali won ci refonte bi dafa li dafa ñew yokk ko ba ñu ci génné aussi mois de novembre nguur gi woote concertation moy concertation yi nga xamné ambassadeur Seydou Nourou jité nako yoy aussi juróom-ñetti ponk la warona waxtané waye boko sété boo ci ba ba paré ñaari weer après ci ñetti pogn gën ga bari rek le dégo am manam kon juróomi ponk yépp classe politique bi dégg wuñ ci té sax waxtaan wowo opposition radicale daf ko boycotter le Front national de résistance demuñ ca tu vois alors euh, ba ñu génnee ci loolu aussi audit di fichier bi gis nga ko ak parrainage bi yooyu yep, ay wuute ak ay ñàkk déggoo mo ci am euh, donc tension bi kon lo li ñu jëk def comme ni ma la wax dañuy ci tension bi fan la lu ko waral fu mu ba ak sur le parrainage mais légui, balanga mena candidaté, mena candidat ci élection présidentielle, <clears throat> il faut nga am euh ñu la euh parrainer lim bu toll ci 0,8% wala 1%. Manam bokoy set euh lu toll ci 53000 électeurs. Manam juroom fukki junni électeurs ak ñatt yo xamni nañ la gën gaa néew pour nga mën a nekk euh, candidat donc su ma tënkee foofu ah, tension itam dafa am dimension kon politique technique juridique ak judiciaire ndax am na fi ay euh, tribunal ay candidats yoo xam ne potentiel li ñuy wax candidat potentiel yoo xam ne yóbbu nañ leen tribunal tëj leen xam nga li ma la wax moo tax tension bi dafa doon tension bu bu doy waar tension bu jafeña saafara alors euh, moo tax ñun société civile dañu ci teel a jóg déjà ci mois d'août dajale nañu mois d'août 2018 dajale nañu société civile bi yépp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci affaire élection fële ci goré les 3 et 4 août ñaar ñetti fan ak ñenti fan ci euh, mois de août ñu génn fa déclaration pour alerter classe politique bi yépp ak pouvoir bi ak état bi ne leen bu utul safara. ci li nga xam ne mooy sooxee ci processus électoral bi ak ñàkk déggoo bi am ci suuf processus électoral bi ak ñàkk wóolante bi am ci diggante way politique yi buñ ci utul saafara fii ñu jëm élection yi ñu jëm dana doon élection yoo xam ne dana bëri fitna te boo moytuwul ci dana am violence te loolu du baax ci réew mi alors ba ñu jógee ci loolu ci Gorée euh, wala lu ko jiitu sax parrainage bi dox nañ ci ay tànk médiation euh, ndax déjà waxtaan wa amoon ci mois de novembre ba décembre te Seydou Nourou Ba jiite ko ñom way politique yi bañuy ñuy waxtaan di waxtaan ba axe ci parrainage ba ñak dégo bi fessé ñun dañu pro laaj dañ ñu ñaan pour ñu fexé defal leen ay proposition yo xamné ñom ñoom danañ ci mëna a ñu euh, demander suspension travaux yi 72 heures pendant 72 heures dem rencontrer pôle politique yi nous avons ci ñu une proposition pour nous ne ñoom envoyé rencontré l'opposition radicale Nous nga boycotté discussion rencontré le président de la république pas taxul solution malgré tout le président de la république a envoyé a fait un projet de loi et l'a envoyé à l'assemblée nationale sans l'accord des pôles, des autres pôles qui étaient dans les concertations, sans l'accord de l'opposition radicale qui avait boycotté ces discussions bi bañoon na ñëw ci discussion yi waaye mën naa la wax ne euh, booba ba léegi tooguñu ndax bi ñu jógee ci loolu euh, def nañu woté nañu par exemple kuréel bu mel GRADEC bi ma bokk euh, jël na initiative ak Andi, ci ak Osiwa fondation Osiwa euh, def ay panel ñaari panel euh, ci sur les points de vulnérabilité point poñ yi nga xam dañuy soxé ci processus électoral bi té indi wuute bi ci classe politique bi lu melni fichier bi lu melni carte électeur yi lu melni sécurisation du vote ak yoyu def nañ ci ñaari panel wo seti parti politique yi ñom ñëpp waxtaan ci ak ñom wo pour ñu waxtaan te amna ay recommandations yuñ ci jëlé yo xamné ne envoyé nañ len ko ñom parti politique yi envoyé nañ ko autorité gis ngeen aussi conseil constitutionnel euh, société civile fexe na euh, rencontrer na conseil constitutionnel mi nga xamné ne waron na càmbar affaire parrainage bi ne leen nañu fexe ba parti politique yi nga xam ne ñoom la ñuy càmbar seen parrainage ñu ñëw fekk ko toog di ko xool fexe nañu également ba la ba li nga xam ne daawul am euh, ñu nangu société civile bi ñëw seede loolu bi ñu ci génnee ak coow li nga xam ni mi ngi continuer di am effectivement bi ñu gisee ne ci ñaar fukk ak juróom-ñaari candidat ñaar fuk ak ñaar yépp dañ leen éliminer la nga xam ne waxoon nañ leen ko ci parrainage bi ñu gis ne loolu moo am maanaam parrainage bi bu fekkee ne bi aussi kenn mënu ko euh, kenn mënul wax ne baaxul waaye nañu ko amalee doonul loo xam ne lii doon na jur jàmm loolu teen nañ lañ ko wax ba ñu taseeg président de la république wax nañ ko ko ba ñu taseeg way politique yi également wax nañ leen alors ba ñu gisee loolu aussi booba ba léegi ñu ngi dox ci diggante yi ñi ngi dox ci diggante yi di def mu médiation yaakaar ne ah naam campagne électorale bi suba lay ubbi waaye eh, ñun euh, du ñu désespérer dañuy continuer jusqu'au dernier moment ndax li ñu jàpp ba légui moy bu fekkee ni bi amul euh, dégo ci règle du jeu yi indi moy élection yu campagne électorale bo xamné euh day am tension élection yo xam day am tension wala fitna te suñu paré aussi mën na situation post électorale bo xamné da fay indi crise te gis nga réew yi yi tas yëpp yu ci bëri en Afrique ci crise post électorale la jóge alors ñi ngi liggéey actuellement ci benn code de conduite boo xam ne bi dañu bëgg candidat yëpp signé ko pour ñu jël engagement ne ñoom ñëpp danañ accepter danañ def campagne campagne bu dal Euh, danañ ko def ci jàmm euh, def seen ay proposition yu leer pour population bi xam bu baax euh, ku ci gañee ñeneen ñi danañ ko nangu bu ñu amee ay contestation duñu recourir à la violence duñ ko jaare ci fitna waaye dinañ jaar ci yeneen yoon yoo xam ne ay yoonu jàmm la pour seen contestation yooyu mën ñu mën ko jël en en charge

loolu warul génn sax ci gémmiñam citoyen sax loolu warul génn ci gémmiñam waaw ndax réew mi yëpp élection yi ñu jëm euh, li ñuy ñaan mooy mu am ci jàmm ñu tàmbali ko ci jàmm amal ko ci jàmm mu jeex ci jàmm jural réew mi jàmm kon nag kuy wax ne da ngay ut ay ay ay comité d'action walla ay euh, euh,

site Bingen euh, je pense que nous contribuer euh, à une meilleure information des citoyens non seulement de Anne mais des citoyens euh, sénégalais d'une manière générale qu'ils soient ici au Séné à Anne au Sénégal ou à l'extérieur du Sénégal